ay ca final la yàlla war a na tàng waxuma dem na day taal eh Karamo saara laa ilaaha illallaah lu bi wax arbitre nee na daa ba pare arbitre sifflé waat na diggante Karamo jini saara à domicile Karamo dëkk Karamo droit Jini Sara gauche Karamo jëlaat na Jini Sara lay la na la Jini Sara war na ko dom yëkkati eh Jini Sara daan na Jini Sara daan na Jini Sara jël na poids léger Jimbi Saara jël na poids léger de